ñu waxtaan tiggi nag tigi ba xam ne xisbu ak ko bokkul xafiif kaamil yooyu ay ay ahsaab la du wird wala du du al wirdu laazim fil xaraka al muridiya wird bi nga xam ne képp ku ko jël donc ab sëñ Bàmba nga tigi donte ne liggéeyaloo ko mooy al wirdul xaatim kañ la kañ la ñëw am nañu waaw sëñ bi kat moom kon joxe woon na wérd wa neen ci gànnaar ni kat ak si sin la la ko suñu boom jox wérd wa waaw al wérd bil maanal am bi bi bi bil mafhumil am secret bii salaay salaam moom ma ko jox ne yàlla ko jox kooku wérd la bil mafhumil am ama bil mafhumil xaas nag wa abil axas al wirdul xaatim bii njaarim la maanaam jëm sa sin la nga xam ne mooy nihayatul mata sëñ bi mat na sëkk lam doon wérdi wii la ko sunu borom jox nga ne moom bi matee sëkk sëkk lam doon mel na ne mënatul a jigg ab jéego booba lañ ko jox bi uddu xaadim sëñ bi booba bi matee sëkk lañ ko jox loolu xanaa war naa junj dara moom. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kay bokki alxaqu saabitun mu leen di nuyu di leen ziyaara bu baax man nag xam naa ne mm, débat wérdu bi moom. duma ci dugg duggug xóotal ak duggug gës waaye jëmmi wuute gi ci am diggante sëñ Moustapha Jóob Alkoki yu ak boroom xam-xam yi gëstukat yu baax yi ñi ma dégg ñu xam ne def nañ ci ay njañse ay njañse mooy ay commentaire ay taaliqaat euh, foofu laa bëgg indi sama gis-gis tuuti rek euh, sëñ Moustapha Jóob xam nga njóobee ni moom Euh, liñ leen di féetale daal xam naa dof jóob daal la ñuy wax dof jóob loolu nag moom lu ñu fi fekk la xanaa sama benn benn mag mu baax mu nekk daaru xudóos mu yéeme lool kiimaane lool waaye moom euh, day wooye boppam bàyyi jóob dof bàyyi jóob teg ca dof xam naa am nañu ko xam te ku yàlla may ma la macha allah ndax jëmmi dof rek boo xóotalee baar bi danga gis ne mën naa am bokkut ak ni ko nit ñi bëgg a bëgg a jàppe daal na fi na dof bi boo demee moom am na ay principe yoo xam ne jàpp ne nit ñi ci boppam ñoo ñoo wérut nit ñi ci boppam ñoo dof ko nit ñi tamit jàpp ne moom <laughs> lu mel noon nag day faral di feeñ ci waxi sëñ Moussa Diop sëñ Moussa Diop ay waxam mm, boo fekkee ñi ko miin ndaa am yoo xam ne faaw nga xam ko ci moom ba noppi su boobaa boo dégloo am doo am lu la ca bett bu dut lool nag moom da nga def moom saa yoo waxee moom coow daat cay am yooye ba ca jiitu eh, mooy sëñ Moustapha dafa bëgg li ñuy tuddee authenticité maanaam daa bëgg mbir mu nekk mu xam cosaan la dëgg dëgg nu mu demee woon ne moo tax xasida yu bari ak ay nettali yu bari moom eh, da cee nekk di jàmbar rek ak di kii dégg nga ci eh, waxtaan wi mu def ba mu am ñeen ñu koy tontu wax na ca biir na mi ngi ñaan xalifa bi ñu jéem a wut ak kuréel goo xam ne daal dañuy jéem a mbindum sëñ Tuubaa ñu jéem koo xool xool la ca authentique la nga xam ne am nañ ca euh, mbindum loxoom ndax daal jaxasoo ki ñu ne sëñ Tuubaa lii la bind lee bind kii ne man bii laa yore euh, dafa dem ba sañ sëñ Moussa moom moom loolu dafa nekk problème mooy authenticité mbir mu nekk authentique fi ne werdu werdu bii mu téye bokk na ci li tax mu téye ko mooy lim ci am mbindum sëñ Tuubaa lim ci am mbindum sëñ ñaareel bi mooy li ko sëñ Tuubaa tudde werd te yee bee sëñ Abdou Khadir joxoon ko mm, boo duggee ci biir mu tudd alxisbu alxisbu rafia alxisbu rafia nga ne kon bee ab dog la ko tudde bii mu tuddee wérd su ko dee moom mu daal di sëñ Moussa mooy li la wax rek authenticité fi ne baat yi bu nekk li muy tekket moom fi ne da koy lijjanti comme ndekam bee da koo tudde al alxisbu rafia te xisbu mooy ab dog kii mu tudde ko al ah, loolu da moom da koy bàyyi xel loolu ku xam sëñ Moustapha moom loolu du nekk jafe-jafe ci yow ba tege ci yu mel noonu mooy sëñ Sawa moom xam nga day jëfandikoo philo euh, philosophie te philosophie moom mooy mbir mu nekk du ko bàyyi mu dem da cee xalaat mën naa fekk nit ñi jàppe ko nii ñëpp euh, mel ne euh, kii da caa am mel ne ijmaa da caa am waaye bu ñëwee moom da koy xoolaat du sukkandiku ci nit ñi moom it loolu jafe-jafeem la ndax bu njëkk rek daanaka wérdu yi daawuñ ci nekk di ci xóotal yenn xóotal yi waaye moom. dafa mel ne wax na ko ci biir waxam daa mel ne li ñu tuddee école sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana la ko tuddee moom daa jàpp ne sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana loolu mu bind nga xam ne daa jàpp ne wérdul xaatim bi zayl la mooy loo xam daal lu ñuy njàmbaas nga ne boo defee yee boo amee jot man ko caa yokk moom jëmmi tees boobu ci boppam la ñu indi antithèse boo def def seen thèse teg nag moom noonu lay doxee loolu moom mbirum mbirum philosophie la daa jàpp ne sëñ mu Lamine Diop Dagana euh, la ci njëkk sax mooy tur yi ñu indi xafif ak nangam moom nee na jógewul ci sëñ Tuubaa waaye ay waxin la ba ca tege nag mooy jàpp ne xaatim ci boppam lu ñuy mottalee la ak kii lañ koy jox ak kaa lañ koy jox euh, mu ne lool mu jàpp ne ab rek la gis-gis dong la ak doonte sëñ Mouhamed Lamine Diop dagg na la jóge tamit ndegam sëñ Mouhamed Lamine Diop dagg askan wi wax ji sëñ moom daa jàpp ne loolu ab xalaat rek la ak gëstu la ijtihaad la loolu nag su boobaa kon keneen mën naa ñoo defaat beneen beneen ijtihaad gis nga ba tey moom mooy loolu mooy problème moom mooy moom moom Hmm, euh, problème problématique bu mu mën a doon moom faaw moom da ciy indi gis-gisam ak ko mën a doon kooku mën a wax nag kooku <laughs> mën a wax mu bàyyi xel ne kooku am na xam-xam wala nangam déedéet authenticité wax ji daal lay xool waaye faaw mu ñëw indi ci loolu nag euh, kuy doxee noonu moom faaw da nga bëri moom moom ñu lay radd ak ñu lay ñu lay ñu lay naq bu moom ndax da ngay wuuteeg da ngay def lu wuuteeg lu nit ñi xamoon da ngay fekk lu nit ñi xam ba miin ko ba defe ne lii doo nga fi nekk mu ñu indi jeneen wax moom teg mu daal di nekk nag ñaari école ndax fi ne école bu njëkk bi liñ jàppoon mooy yeneen wérde yi boo koy jëfandikoo euh, bu dee xaatim bi loolu am njàmbaas lay doon mooy boo amee jot féex mën nga koo def moom nag daa ñëw indi jeneen wax moom daa ñëw jàpp ne xaatim bi moom moom mooy wérd yi ci des nag wérd la ci baat bi wérd la moo tax ñu koy tontu naa ko bu fekkee du lu tax kon ñu koy wooye wooye al wérdul maaxuus moom lool tontu na ko moom neen nangu na ne wérd la waaye wérd nag dafa am ay ay maanaa werdu mom moy lepp lu nit ki def di saxal nga do du farata ci mom mu wutal ko abu wutal ko waxtu wutal ko lim di saxal donte julli la donte jangal alxuraan mané soko su ko waye nak waaye nag ndekam bi daa bind hizb bi mu bind al wird ñaar yu la ko différencier ba ca tege moy ndekam bi señ bi da ko mujjé jot nihayatul mataf ci mujj dox ba tayit mu tuddé ko al khatim mo nopi indi ar rasulul khatim ni nga xam ne la yanabi sallallahu alaihi wasallam di nubu ak risala mu japp na ko wird bi day tej <laughs> day tëj moom noonu la koy déggee su boobaa nag bu ko sëñ Tuubaa xasee ba tudde wérdu te mu gis sëñ moom la mu dagana tudde ko lu ñuy njàmmaas te sëñ moom la dagana loolu sëñ Tuubaa ko wax moo tax loolu day nekk problème ci moom moo ko du ko mën a jël yu mel noonu moom boo kuy déglu sëñ sëñ eh, dañ ne Diop dof moom yooyu bay boo nga di ko bay boo nga di ko bàyyi xel ndax moom ragalut di wóoteeg nit ñeeg yu mel noonu loolu lu am solo la ba ca tege nag mooy xam naa ne eh, dina baaxit Euh, euh, ndax euh, damay gis ay ay logit lañ fi dugal dana baax maa maanaam jëmmee waxtaan wi ndax man waxtaan wi déglu naa ko ca tàmbali ka ba muy nuyoo ba ci bi mu jeexee yépp déglu naa ko loolu it dana ci baax maanaam képp koo xam ne bëgg nga cee indi ay njeñse bëgg ci indi say xalaat wala nga bëgg koo tontu wala nga bëgg a dàq ay wax indi jeneen wax loolu moom lu jaadu la ndax moom sëñ Moussa day ñëw fekk wax mu dindi ko indi wax subaa yow it nag sañ nga ñëw dindi ay waxam. waaye su baa nag la la la cay gën mooy booy ba ngay diglu waxtaan nga déglu ko ca tàmbali ba xam lu ko tax a jóg xam ay kiyam ndax moom fi mu toll nii lii mu wax nii lépp euh, dafa indi thèse def antithèse dafa fekk thèse mu def antithèse mu def antithèse euh, daa def synthèse daal di tëj moom nga ne ko résultat waxtaan wépp thèse bi mooy lan mooy da daa ñu naan wérdu wi wérdul xaatim moom lu ñuy njàmmaas rek la yée mooy wérdu yi dëggantaan moom loolu la fekk loolu la doon tontu. léegi nag bi ñëwee mu def antithèse mooy mu dindi loolu indi ay argument am teg teg teg teg teg lu tax bii ñu tudd ko xisbu bii bii ñu tudd ko werd tañ ne xisbu bi mooy werd werd bi du werd bii la sëñ Tuubaa mujj jot tudd ko xaatim bii lañ am mbindum sëñ Tuubaa ci loxoom amuñ amuñ ko ci beneen xam nga kon ñëw na daal daal di naqdalee dindi ko bi mu noppee nag mu daal di andi antithèse moom mu daal di andi synthèse synthèse mooy lan mooy déedéet mbir mi dañ koo safaane waaye bii mooy werd bi yee barkeelu rek la maanaam ay ay ay xis bu rek la mooy loo xam ne mën nga mën nga caa barkeeloo mën nga cee dundal sa kii dafa am objectif ngir mucc sawara tàbbi àjjana ak yu mel noonu wérdu bi nag dalay jokkaleeg sëriñ bi nga mën a tëbb ca leer ya moom noonu la ko noonu la ko kiyee moo tax daal xam naa ne moom it loolu dana ci baax di déglu waxtaani fam tàmbalee ba fam jeex su ko defee boo koy tontu mën a indi ci li koy li nga koy tontu ndax li ma ñi ma dégg ñu di ko tontu yi indi moom sëñ Moussa indi na ko ci biir waxtaanam indi na mbindum sëñ Lamine Diop Dagana ji waaye daa jàpp ne loolu sëñ mu Lamine a Dagana xëy na ijtihaadu boppam la mën na caa bañ a sukkandiku ndax waxut ne lii sëñ Tuubaa moo ko wax wala ci sëñ Tuubaa la ko jële wala nangam xam naa loolu it lu ci lu ci lu ci am solo la moom euh, xam naa li mat a bàyyi xel daal mooy euh, ci mu Moustapha mooy moom it ni mu yore mbindum ndax mu yor na mbindum sëñ Tuubaa li mu wane ci image yi mbindum sëñ Tuubaa ci wérdu xaatim bi Euh, nee na léeg da ciy gis nag leneen da cee gis ñu yokku ci dara ndax moom problème boobu da ko am moom moom moom dafa bëgg authenticité léegi nag mën naa am sëñ Moussa noonu nga yore mbindum sëñ Touba mën naa am keneen yor mbindum sëñ Touba ci loxoom koo xam ne mën naa am ngeen wuute ay baat ak yu mel noonu moo tax su boobaa euh, euh, loolu mu ñaan sëñ Mountakha sax ne sëñ Mountakha ci wàllu authenticité mbindum sëñ Touba nañ ko man maa ngi koy ñaan sëñ Moussa moom mu jóg ndox ci ay jiiko ndax li may dégg rek mooy yónni naa diw. ba ma gisee diw bind nangam yónnee naa fa moom it maa ngi koy ñaan loolu lu am solo la waaye moom it na ci jóg dox waaye jóg dem ba ca sëñ Muntaxa ndax moom loolu jëfewu dem ba wax ko ay ay problème wax ko wax ko wax ko su ko defee sëñ Muntaxa xëy na loolu idée bi man a dikk wala jaanam wàcc waaye bu toogee rek naan aka neexoon mun Muntaxa def nangam man maa jàpp ne loolu war na koo def warta sax bind jëpp ma sax daa war a bind daa war a dem ba àgg wax ko ko ne ko lii ak lii kat mi ngi yàqu wala authenticité mbindum sëñ Tuubaa mooy ñu della ca cosaane kii dee bind li kii bind li safaan bi am na ak neexoon nga woote ne képp ku yor mbindum sëñ Tuubaa ci xasiida wala ci euh, xeetu wérd wala yu mu indi ko soo ko defee ñu xool ko donte dañ koy photocopier ko loolu moom war na war na caa dox ndax moom bu yoree mbindum sëñ Tuubaa ba naan mbind maa ngi nii lii moo wér xamul ne mën naa am keneen yor mbindum sëñ Tuubaa ndax diw mën naa toxal ci baayam baayam toxal ci maamam maamam toxal ci sëñ bi sëñ bi jox ko am bind ñoom su boobaa kon la leen sëñ bi bindal ci la ñuy sukkandiku loo ko mën a won ne ko yor naa bindu sëñ Tuubaa lii moo ca nekk ñoom moom it day xam ne yor na bindu sëñ Tuubaa du ko wax euh, euh, xam naa daal moom am na solo ndax sëñ Moussa moom li wane ne ay ay waxam dana di am solo mooy débat bi muy solli loolu nag lu am solo la ndax day day indi xam-xam day wax dara nit ñi ngi ñëw di ko tontu ñoom danañ jéem a indi xam-xam saa yoo xamee ne xam-xam taaje na nag nit indi indi beneen xam-xam loolu ñi ciy jariñu mooy sunu maas gi nga xam ne moom dañoo toll ci eh, jàng ci ndax ñi ma dégg ñu tontu ko bu sëñ mu taa wax doon duñ ko tont kon loolu am na solo mooy mooy di sulli débat yi daal bañ a bàyyi mbiri rek ni ko ne ñëpp mii ne boo ñëwee fa ñëpp jaaroon rek nga jaar fa ay léeg nga seetantal ko gëstu ko ba duut ca baaraam moo xam la may wax wér na wala wérut même bu wérut sax radd biñ koy radd dafa am solo ndax day tax ñu indi xam